internationale. C'est l'info internationale. abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa yu wér te wóor ci réew mi ak ci bitim réew. SeneInfo. internet yi ñuy bàyyi xel ci seneinfo international ñu ngi leen di fas yéene defal tënku ba xibaar tey lundi di 30 janvier 2023 ñu tàmbale ko xibaaru biir réew mi. coow li nga xam ne nag euh, moom moo jug jëm ci lii di Télé Express régional bi ñuy lam-laamee bu ko moom ak déet ci diggante France ak Sénégal euh, am na nag euh, ñaari jëwriñ yu nguurug Sénégal yoo xam ne kon àddunañ jëmale ca ka ca jiitu mooy Abdou Ndéné Sall li nga xam ne moom mooy ministre directeur général bu SENTER moom nag nee na li nga xam ne moom mooy raay yi système système ba gaar yi ak daal lii di train loolu lépp daal nguurug Sénégal moom moo ko moom ci cent pour cent wax na itam ne kon daal nguurug Sénégal moom mooy kenn ki nga xam ne moom kott moo moom lii di train express régional wante nag xam le ne ne li nga xam ne nag moom mooy exploitation bi moom la ñu dénk société bi di SETER nekk nag filiale bu SNCF keneen nit ko àddu jëmale si moom mooy porte-parole bu gouvernement bi di ministre du commerce di Abdou Karim Fofana moom nag daanaka li naataangoom bi wax rek la wax nee na daal euh, lii di train express régional bi kon Sénégal moo ko moom moo mën ko boppam te it bokk ak kenn. gouvernement bu Sénégal nag euh, xam ngeen fan yi ñu génn dañ xamle woon ne kon euh, lii di euh, njëgu loyer bi dinañ ko wàññi muy nag loo xam ne dañ ko waroon jaarale assemblée nationale wante nak ñoom dañoo jël geneen ko yoon ñu ne nag fi mu ne nii daal mbirum règlement lañ koy jaarale kon nag ñu ngi xaar ab décret bu njiitu réew mi boo xam ne kon moom daal moom la ñu war a amal ngir nag ñu wàññi. yooyu la e, njëg jëm ci e, seeraayu lii di loyer bi kon fii ci Sénégal présidentielle 2024 amaat na keneen ku fësal candidature am e, moom kooku nag moom mooy docteur Babacar Diop bu FDS le Guelwaar loolu nag mu ngi ko amal bés bu démb fële ca CICES gannaaw bi nga xamee ne nag ñii di. waa Gelwaar kon di partem amaloon nañ ab congrès boo xam ne def na ñetti fan le 27 le 28 ak le 29 démb kon ca njeexital ba ci la fësal kon li nga xam ne moom mooy candidature pour présidentielle 2024. xibaaru Afrique dañ koy tàmbaleeg accident bu métti kon bu am ca Nigéria ñu ne nag ñaari camion mu nga amee nag euh, ci sud bu dëkk ba euh, ba nag euh, lu toll ci ñaar fukki nit ñàkk ci seen bakkan ñu ne sax am na ay xale yoo xam ne bokk nañ ca bu ñu sukkandikoo kon ci autorité ya nee it am na sax ñoo xam ne ci boobule accident dañoo lakk lakk gu métti ba sax kenn xameewu leen ca Afrique du Sud nag ay defkatu ñaawteef yoo xam ne dañoo yor ay ngànnaay ñoom ñoo dem daal euh, fekk ab anniversaire boo xam ne kon ñu ngi ko doon euh, célébrer euh, ci fu ñuy wax township ñoom nag soox kon ay bali fekkal daal tiire ko ca nit ña ba jot ca faat lu toll ci juróom ñett ñaar nit ñooñu nag ñu ne kenn xamul fu ñu bàyyeekoo ñoom daal jékki-jékki nañ nekk juux si ci li nga xam ne moom mooy boobule cérémonie kon ba faat fa kon yooyu la nit am na ñetti nit yoo xam ne am nañ ca ay euh, gaañu gaañu bu ñu sukkandikoo kon ci ab communiqué boo xam ne waa police ñoom ñoo ko amal. xibaaru bitim réew dañ koy tàmbaleek euh, réewum euh, Pakistan foofu nag ab jéeye moo fa am kon bésub altine ak tey jii ca fa ñuy wax Peshawar ci ab juma foofu nag ba léegi ak def ko ñaawteef daal ñoo fa juux kon. ab explosion bi ngeen ne kon ab explosion lañ fa amal muy kon ab bomb boo xam ne daal dafa explosé ci ab juma ñu ne ba lu ci ci 47 personnes kon ñoom ñoo ca loru ñàkk ñi seen bakkan lu toll ci cent cinquante it am ca ay gaañu gaañu nit ña nag ñu ngi fa woon kon. ngir nag euh, sauver ñi nga xam ne ba léegi ñu ngi desoon ci bâtiment ba daanu. dañ koy jeexal ak beneen xibaaru bitim réew ki nga xam ne moom mooy euh, chef diplomatie bu Amérique di Anthony Blinken moom nag gannaaw bi mu bàyyeekoo fële ca Égypte euh, dem na fu nga xam ne moom mooy Israël ak Palestine ba suba tey bi ci jamono joo xam ne nag xeexoo yi ak reyante yi dafa tàmbaliwaat ci diggante ñaari réew yooyu moom nag kon woona leen ngir daal ñu Euh, kon daal bàyyi xeex bi amal jàmm balaa kon mbir mi di gën a jéggi dayoo loolu la ñu tey xibaar seen teewlu leen jox dig daje ëllëg yaa ngi jëm.